économie fële ca FASEG euh, mu di euh, kon euh, amaat Ndiaye dana ci dikk suñu biir xibaar ak ay explication yu gën a yaatu beneen ponk bu mujj bi nag ñeel wàllum bitim réew fële ca réewum Iran doon nañ fa amal élection ngir tabb seen njiitum réew ñeenti candidat la ñu woon waaye nee nañ ñaar ñi génn nañu ci deuxième tour bi ba tax na kon yëf yi kon 5 juillet lañ leen war a séparer ñoom ñaari candidat yooyu war a jongante ci deuxième tour bi di fàttali rek ne réewum Iran Ibrahim Ibrahim Raisi moo ko jiite woon waaye euh, ci ab l'accident bu roppalaan ci la ñàkk bakkanam ba tax ñu sóobuwaat ci ay ngir tabb njiitum réew mbokk yi ñetti ponk yooyu mooy li gën a fës suñu boppi xibaar di leen gërëm di leen sant mbokk yeeg xarit yi yéen ñi taamu seen télévision 7 TV kon tey di gaaw ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru digg bëccëg gi moo waral sama teewaay ngir fas yéene leen ko dégtal. di ko dooree ak eh, ni ma leen ko junjee sànq ci boppu xibaar yi eh, fale ca pencum ndaw réew ma la ñuy daal di jubali ndax tey ci bëccëg gi woote nañ fa woon ab ndaje mu nekk ndaje bi nga xamante ni nag eh, dafa waroon jubbanti lenn ci wàllum budget maanaam la ñu nattaloon jëwrin yi ñu war cee liggéey ci atum 2024 am na ak jubbanti guñ ci waroon a indi di ak coppite loole nag tax na ñu woote woon ab ndaje ngir mën ko faa woote waaye mel na ni député yu Benno Bokk Yaakaar ñoom ñooy féete majorité bi dañu daal di gàntal loolu ndax jàpp nañ ni daal seen élimaanu jëwriñ yi di Ousmane Sonko dafa am kàddu yu mu yëkkati démb te loolee ànduñu ci ba tax na euh, lii di deuxième session euh, bu atum euh, bu atum 2024 daan nañ ko mm, ndar képp tey ci gaaw bi li nga xamante ne nii moo waral suspension bi mooy moom ci boppam démb gis nga mu def déclaration boo xam ne amul benn worma bu mu jox assemblée nationale. nit nag boo joxul worma assemblée nationale ki nga xam ne mooy sart yi nga xam ne moom la ko constitution jox muy le président de la république président de l' assemblée wax nañ ko ne ko na jox jokkoo ak moom pour que ñu régler lii ndax moo gën ñu ñëw fii di xeex xuloo xam nga ñoom bi ñu nekkee opposition. saaga xuloo yàq micro yi te gis ngeen assemblée nationale bi ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu normalé ñu changé lépp du ñu nangu nag nit ñi ñëwaat comme ñoom loolu lañu tàmm toj taabal yi euh, dindi micro yi li tax ñu sursoir mbir mi moom mooy débat d'orientation budgétaire comme ni ma leen ko waxee bii loolu amee bureau bi moom moo réunir en toute souveraineté daanne kat premier ministre bi nga xam ne wegul assemblée saaga na assemblée wax assemblée joxu ko cër je pense que kooku te dañu ne constitution li mu wax dafa ne gouvernement dafa collégial donc ministre am dañu ne balaa ñu koy déglu wala ñuy wax ak kenn il faut que loolu président de la république lijjanti ko ak président assemblée balaa ñëw ñu ci leen léegi nag session bi dinañu ko tëj léegi pour que ñu jàll ci leneen. tëj session bi jàll ci leneen mu di kàddug Abdoul Mbow euh, nekk euh, jiite groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar fole ca euh, pencum ndaw réew mi kon mu wàllu wàllum DPG boobu di déclaration de politique générale coow li mel ni dafay door a door ak la nga xamante ni loolee la ci majorité bi yëkkati woon mu di bu ñu mayul daañu amal li nga xamante ni moo di motion de censure pour daaneel gouvernement bi Ousmane Sonko jiite kon wàllum motion motion de censure boobu doon na lu ñuy euh, ŋawti ŋawtee boobee ba léegi ne daal waa majorité bi loolee la ñu namm ba tax na daal euh, kii di Ousmane Sonko moom xamle na ni moom it am nay pexe ndax bii assemblée ak règlement intérieur ba fa ne suñ ko soppali euh, buñ ko soppiwul dana def déclaration ci beneen assemblée boo xamante ni dañ cay jël pàcc bu nekk ci askan wi ngir ñu teewee ko ci juróom benn fukki at ci démocratie bu Sénégal bëriwul ay motion de censure yuñ ci nemmeeku ñeel déclaration de politique générale tey ci am amuñu benn jeexital ay premier ministre ku ci mel ni Mamadou Lamine Loum Mama Dior Boy Abdoul mbay wala sax bi ci mujj muy amadu Ba ñoom ñëpp jotoon nañu dëkku ay motion de censure ba ñu demee ci assemblée nationale motion de censure yooyee nag yëpp la ñu dàq waaye nag nguur yooyee ñoom ñëpp dañu amoon majorité ci assemblée nationale bu am dayoo nag kaaraange googe nguurub Ousmane Sonko nag amu ko ba loolee waral kii di Ousmane Sonko di dem ci déclaration de politique général bi ak tey loole nag li ko gën a may muy article cinquante cinq bu charte nde ndeyi réew mi bi nga xam ne mu ngi fësal ne premier ministre suñ ko tabbee dafa war a def déclaration générale ca assemblée nationale waaye nag amul dele ci constitution bi te itam disposition yi nekk ci règlement intérieur bu assemblée nationale doon encadré DPG bi yépp la ñu abrogé ginnaaw bi nga xamee ne dañu sempi woon poste de premier ministre ci atum 2019 te delloo si waatu leen ba léegi loolee di wone ne kii di Ousmane Sonko fi mu taxaw dëgër na bu baax waaye nag du moom kese moo yéex ci wàll wi ndax kii di Abdoul mbay itam toog na lu toll ci juróom benni weer laata muy dem ca assemblée ginnaaw bañ ko tabbee ci atum 2012 waaye nag charte yi réew mi dafa am beneen leeral bu mu indi ci déclaration de politique générale bi maanaam def ne déclaration de politique générale boobee assemblée assemblée nationale rek lañ ko war moo ne day kii di Ousmane Sonko ci ab bataaxal mu doon tontu député bii di Guy Marius Sagna mu ngi xamle ne su assemblée nationale ay matuwaay fileek le 15 juillet 2024 dina amal sama sama DPG waaye nag ci kanamu assemblée bi nga xam ne mooy askanu Sénégal ak ay partenaires u Sénégal ci kanamu juri bi nga xam ne ay boromi xam-xam ak ay acteurs yi nga xam ne yënguwuñ ci wàllum politique ñoo fay nekk ndax premier ministre dafa bëgg violer constitution ana ban valeur lay DPG boobee loolee di am su fekkee ne député yi nga xam ne askanu Sénégal moo leen fal duñ ko mën a critiquer wala ñu valider ko ndax ñu ngi jëm ci ay tension yu métti diggante législatif ak l'exécutif ak lu ci mënti am li leer ba leer mooy déclaration bile moom dafa mel ni da yokk ci xar mi karaw. Euh, Ousmane Ba jërëjëf ci jàngat boobu waaye ba tey waa Benno Bokk Yaakaar ñoom xam nañ ni daal bëgg nañ sax dugal projet de loi bi nga xamante ni. dafay euh, wañ loxoy président de la république ba dootul mën a euh, tas lii di assemblée nationale ni ko ko yoon maye woon boobee déclaration boobee projet de loi ñoom waa benn Bokk Yaakaar fas yéene nañ ci jublu nu mu gën a gaawee ab Mbow ñun xam ne mooy le nu mu gën a gaawee na indi leeral ci situation bi nga xam ne moo am moom ak le pouvoir exécutif afin que ñu mën a def daal nu mu gën a gaawee li nga xam ne mooy déclaration de politique générale ñu wax tamit que ne daañu utiliser bépp jumtukaay bu légal bu constitutionnel ba nga xam ne tey jii li nga xam ne moom la ñu oo muy défiance ñu fekk ko ci défiance boobu noonu ñu wax tamit que fi mu nekk nii le président du groupe parlementaire Abdou Mbow junj na ko dañoo enclenché benn processus. liggéey ci loo xam ne tey article li nga xam ne moo doon tax kii di président de la république mën a dissoudre assemblée nationale du amati ñu liggéey tamit ba nga xam ne tey li bokk yaakaar bi groupe majoritaire ñu ciy liggéey ut pop indi proposition de loi boo xam ne tey président de la république du mën a ci naxasaayal assemblée bi mu nekkoon Adji Mbergane Kanouté nekk député bokk ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ba tey ñoom seen ndaje boobu ñu ngi ko doon amal démb seen digg ak taskatu xibaar yi ñoom waa Benno Bokk Yaakaar député yooyu nag jàpp nañ ni kii di Ousmane Sonko di Elimane Diourini moom euh, di nekkul di dox ci yoonu wi nga xamante ni moom la ko nguurug Sénégal may maanaam moom la constitution bi digle. cim ndajeek taskatu xibaar yi la député yu coalition benn bokk yaakaar daal di joxe seen xalaat ci déclaration bu politique générale bu premier ministre. Abdou Mbow ak ay ñooñam jàpp ni dogal bi nga xam ne Ousmane Sonko jël na ko ngir bañ a teew ca pencum mu réew ma dëppoowul ak yoon. képp koo xam ne premier ministre du Sénégal da nga war def li ñuy wooyee déclaration politique générale. dafay tax ki nga xam ne mooy jëwriñu gouvernement bi dina ñëw waxtaan ak député yi ci li nga xam ne mooy vision bu dee vision am na li nga xam ne mooy ambition bu dee ambition am nañu ko. ak li nga xam ne mooy les grandes orientations. parlementaire yi bokk ci kuje gi di nakarlu itam génnup député yu coalition Yewwi Askan Wi doon wax ni règlement intérieur bu assemblée nationale jëlul en compte DPG bu premier ministre. règlement intérieur boobu noonu ñi di député Yewwi yi moom la ki nga xam ne mooy ex premier ministre Amadou Ba ñëwoon def ci déclaration politique générale au mois de décembre. moom lañu ñu également sukkandiku woon pour def li nga xam ne mooy motion de censure bi ñu déposé woon. ci lu soxal ñàkkub délai bi nga xam ni ñi faree ci nguur gi ñu ngi koy yëkkati benn Bokk Yaakaar di indiwaat situation bi nga xam ni amoon na ci élection présidentielle ba ñuy fixé datu jongante yooyu. ndax le conseil constitutionnel bu yàggul ci élection présidentielle bi bi coow amee meilleur délai bref délai dañu jàpp que ni te délai raisonnable mooy le kon le premier ministre waxoon na ci yi mu ñëw def li xam ne mooy déclaration de politique générale. loolee yëpp tax ba Abdou Mbow ak ñi mu àndal jàpp ni lile ay pexe képp la ngir teggil Ousmane Sonko exercice bile di déclaration de politique général akub motion de censure. ba tey ci wàllum déclaration de politique général boobu la ñuy desandi ndax ba léegi daal. jàpp nañ ni euh, ñuy féete ci nguur gi ñoom euh, fa ñu teg seen tànk foofu la ndax euh, règlement intérieur bu assemblée nationale fixé wul délai de trois mois pour premier ministre war a ñëw teew seen kanam ndax gannaaw ba ñu supprimer poste premier ministre delloo si waat ko am na coppite yi nga xamante ni waroon nañ ko indi ci règlement intérieur bu assemblée nationale. ngir sàmmonteeg li ñuy wax séparation des pouvoirs ak principe de la légalité. premier ministre ne na ne du def li ñuy wax déclaration de politique générale Ousmane Sonko mu ngi ko ne ci benn bataaxal bu mu bind ngir indi ay tontu ci interpellation député Guy Marius Sagna mi xam ne ni nag dañoo falsifié règlement intérieur bu assemblée nationale. bu ñu sukkandikoo ci Guy Marius Sagna liggéeyu assemblée dafa tagg témbe ndaxte dafa am benn faux règlement intérieur boo xam ne moo fay daw depuis bu ñu tegee treizième législature. député bi dolli ci ne ki fi nekkoon premier ministre Amadou Ba ci boobu règlement intérieur la def déclaration de politique générale fukki fan ak ñaar ci weeru décembre atum 2022 ki nga xam ne nag jamono jii moo jiite gouvernement bu Sénégal mu ngi xam ne ni article cinquante cinq bu constitution bi dafay obligé premier ministre mu def déclaration de politique générale ci kanamu assemblée nationale wante waxul délai ak procédure yi nga xam ne moo lalu ci règlement intérieur bu assemblée nationale. te itam disposition bu règlement intérieur bu assemblée nationale nga xam ne moo fixé délai ak procédure déclaration politique générale ak lépp loo supprimer poste de premier ministre ci loolu nag règlement intérieur bu bees bi bu assemblée nationale sóoraalewul ki nga xam ne moo di premier ministre ndaxte indiw ñu ci ay coppite gannaaw bi nga xamee ne delloo nañ post de premier ministre. loolu lépp nag boo ko boolee premier ministre xam ne na nekkul ci disposition def li nga xam ne moo di déclaration de politique générale. bu fekkee ni nag disposition yëpp matale wuñu ko ci biir assemblée nationale fii ak fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2024 Ousmane Sonko mu ngi xam ne dina def déclaration de politique générale wante mu ngi koy def ci kanamu askanu Sénégal ak partenaires yu Sénégal ak jury boo xam ne dafay am ay universitaires ak ay intellectuels ak ay citoyens yoo xam ne bokkuñu ci politique. pencum ndaw réew moom sax am na ay. coppite yu ñu fa nemmeeku ci wàllum jumtukaay yu xarala ya nga xamante ni euh, ca la ñu doon euh, moom la jëwrin yi wala député yi doon jëfandikoo ci ndimbaluk réewum Corée daanaka soppi nañu lu bëri ci système de communication wala système informatique bi ba ci sax na nga xamante ni noonee la ndawi askan wi daan voté bii la yoon dootul jar ñuy yëkkati loxo ñu koy wàññi waaye daal système informatique daal la jaar Euh, maanaam bés bouton pour wane ni d'accord nga wala voté wuloo loolee lépp nag machine bi war koo affiché mu nekk jumtukaay yu méngoog jamono. ay caméra yu bees ay sièges yi nga xam ne dañu leen équipé ay écran yu mucc ayib assemblée nationale wane na xar kanam bu bees xar kanam bi nga xam ne dañ ko gën a méngale ak xarale yu bees yi. léegi député bi carte lay yor cartam lay yor ak carte bi dina ci voté dina ci jël parole dinañu compter vote yi. dinañ afficher vote yi. système yi ñu am léegi député bi mën na à partir de këram mu yónnee ay documents à partir de fi ñu yónnee ko ay documents. naka noonu projet bi am mëbët itam yokk dayoo assemblée. projet bi dinañu permettre li ñu bëgg ñu def ko moom mooy defaraat assemblée bi ba mu ba mu nekk aux normes ñu yokk place yi gën ko taaral nit ñi xaj si. moo gën a yaatu ci déplacement ci biir ak yëpp am sécurité. loolee yëpp nag ci ab njëg bu toll ci six millions de dollars muy ñetti milliards ci suñu ay koppar waaye nag jar na ko suñu sukkandiku ci ñu yore communication ëtt ndaw réew mi. waa Corée ñoo koy ñoo koy toppatoo. ñoom ñooy gérer projet bi. ñoom seen voyage yi dafa xam nga foofu ak fii dafa sori lépp ci biir la nekk seen frais de séjour subsistance donc loolu boo ko gisee coût bi toll noonu loolu yëpp loolu la plus équipement moderne yi nga xamante ne indi nañ ko fii. ak lu ci mënti am installation yu bees yi danañu tàmbali di fonctionner niki samedi bi ñu dëgmal ci ab plénière bi am ci assemblée nationale mu doon ab occasion ngir ñu mën leen tester. ñu waxtaan ci wàllum koom ak euh, ni nga xamante ni noonee la ñuy euh, le réewum Sénégal di euh, lebe ay koppar ci bitim réew ngir mën a wëyal ay programme am loole nag doon na li nga xamante ni ñu ngi koy xamle ni Sénégal la muy leb bëri na lool bu ñu jógee ci wàllum eurobond ñëw nañ ci wàllum emprunt obligataire ak yeneen xeetu leb yi nga xamante ni daal ñi seen xam-xam màcc ci wàllum koom économie ñu ngi ciy am ay gis-gis yu wuute. ki ñu ciy bi la yoon moo di Amath Ndiaye nekk jàngalekat fële ci daara ju kaw ji rawatina Fazet moom jàpp na ni nguur gi faw mu leb bu bëggee jëmmal ay programme ñetti weer gannaaw bu ñu leen falee ci boppu réew mi nguur gu bees gi di wëyal di leb xaalis bi ci mujj toll ci ñaar téeméeri milliards ak juróom benn fukk ak juróom ci suñu xaalis. yoon lañu dox te buñ ko deful dëkk bi na taxaw te buñ ko deful daf dëkk na projet yi dina taxaw. Euh, lu bari dina taxaw donc dañ koy doxal rek donc lépp bi ñuy lépp nii da nekk loo xam ni yoon la réew na loo xam ni ñun dañu bari soxla bëgg nañu faj faju bëgg nañu hôpital yi doyu bëgg nañu defar ay tali tali yi doyul bëgg nañu jàngal xale yi bariwul li bëgg nañu bëgg nañu alal ji bariwul ci réew mi réew mi ba du attanu ko bu ñu sukkandikoo ci professeur Amath Ndiaye lépp ngir fay suñuy bor lu xel mën a nangu la lii problème mooy intérêt yi rek intérêt yi moom intérêt yi nag moom moo rek mu ngay fay te intérêt moo gën a tuuti li ngay remboursé intérêt yooyu budget bi fi ñu toll Sénégal bu muy commencé la bëri attan nañ ko attan nañ ko toll att attan nañ ko ak affaire pétrole bii di ñëw nag ak gaz bi yàlla dina def ñu gën ko attan waaye lu ci am solo roy mooy bu ñu lebee rek dañ ko teg dugal fañ ko war dugal def ci li woon def liggéey ci li woon liggéey ndax réew mi jëm kanam mu jàpp ni it ni Sénégal yeneen i réew dañuy faral di leb it ngir sukkandiku. boo xoolee dëkk muy wax États-Unis Amérique dañuy leb te ñoo ñoo ñëpp bor ñu ëpp bor France ñoo ñëpp te ñooñu comme c'est ñoo ñu am réew yu ñu naan développé nañ am nañu doole te ñooy leb astama ñun ñi amul doole donc foog ñu leb leb bi mënul ñàkk ndax leb bi nag c'est pour ay soxla te boo xoolee Sénégal sax seen budget bi li tax ñu leb surtout surtout pour investissement la parce que Sénégal budget bi amuñu amuñu problème pour fay salaire. wala ak nu limu xaalis bu ñuy lépp mën a toll professeur bi nga xam ne nii moom mooy jàngale ca FASEG jàpp ni lu gën a am solo moom mooy ñu xam nu ñuy lebee te bu ñu lebee ba noppi. ñu xam fi ñu koy dugale ci wàllum koom ba tey kii di maleen amadu Niang nekk spécialiste ci wàllum finance publique moom it am na jàngat bu mu def ci bor bu mujj bi nga xamante ni euh, daanaka mu ngi toll ci ñaari téeméeri milliards ak juróom benn fukk juróom loole nag ñu am euh, ñu lever ko ci fi nga xamante ni moo di euh, bourse régionale des valeurs mobilières. état ñi ko def ay eurobond ñu génnoon ne. du li ñu gënal ndax euro boo koy def muy ab en devise étrangère maanaam xaalisu jàmbur da ngay am li ñu naan le risque de change am le risque d'intérêt kon euh, daanaka au cours de la période de la dette euh, taux de change bi mën na yéeg taux d'intérêt bi mën na yéeg kon la ngay àbb maanaam la nga yaakaaroon ni moom nga àbb mën na ëpp li mën na mën na mën na gën a néew li nga li ngay li ngay mujjee fay bu ñu defee nag emprunt obligataire dafay nekk loo xam ne da nga koy àbb sur le régional de l'UEMOA kooku day nekk marge boo xamante ne marché wu CFA bi la euh, loolu dafa di loo xamante ne doon na loo xam ne moo gënal euh, tous les observateurs euh, de la vie politique et économique nationale léegi nag bu ñu xoolee lu jëm ci dette dañuy xool li ñu àbb ak ni ñu ko àbbee xool taux yi xool maturité bi waaye tamit xool secteurs yi nga xamante ne fa lañ ko def secteur yi ñu ko bëgg a def muy l'emploi des jeunes dans le secteur des transports dans le secteur du bâtiment dans le secteur de l'éducation et cetera dans le principe doon na lu baax waaye bu ñu nekk rek loo xamante ne dañ koy xool tey ndax tey am na sujet d'actualité dañ ko war a topp loolu moo ñu loolu moo ñuy wax ndax liggéey bi nga xamante ne état mu ngi koy def ak xaalis bi ñu àbb liggéey gu baax la wala du liggéey gu ci wàllum njëg gi ba tey euh, loole économie la génnaguñu ci euh, li ñu waxoon ni dañuy wàññi yenn njëg ci yenn produits yi loole ñu koy nemmeeku yenn gox fi ci ndakaaru waaye ca biir réew mi ba tey ña ngay wéyal waxtaan wi ca diwaanu njaareem euh, fa nga xamante ni nag gouverneur bu région ba di Ibrahima Fall moom woote na ab ndaje acteurs yi nga xamante ni ñoo séq mbirum jënd ak jaay ngir ñu waajal euh, produit yooyu niñ ko amalee fii ci Ndakaaru ñoom it ca diwaanu Njaareem ñu war ko bi ñu dajee huile de palme bi diwlin bi ñu ko am le litre au détail ñaar téeméer ak ñaari dërëm mooy mille dix francs donc demi gros bi mi ngi ko war a jaayee dix neuf mille cent quarante francs le bidon de vingt litres bidon vingt litres bi grossiste bi mi ko war a jaay dix huit mille neuf cent huit cent quatre vingt dix francs bidon vingt litres bi ex usine usine bi importateur bi ñu ngi jaayee dix huit mille six cent quarante francs CFA bidon vingt litres pour euh, riz donc ñu ngi quatre cent vingt maanaam ak ñeenti kilogramme donc demi grossiste bi ñu ngi jaayee dix neuf mille cent francs sac bi saaku cinquante kilo bi grossiste di jaayee dix neuf mille cent francs importateur bi wala usine bi ñu ngi jaayee dix neuf mille cent francs saaku cinquante kilogramme sucre bi mooy suukar bu mokk bi kilogramme bi ñu ngi ko am à six cent dix francs CFA demi grosse bi di ko jaayee vingt neuf mille deux cent bi di jaayee vingt huit mille neuf cent mooy saagu cinquante kilo importateur ñu ngi jaayee cinq cent soixante treize mille francs CFA production Richard Toll cinq cent cinquante euh, bi ñaari façon farine la bi ñu naan farine boulangère de blé de type cinquante cinq boobu saag bi bi ngi jar quinze mille cinq cent cinquante francs CFA farine boulangère améliorée bi saag bi saagu cinquante kilos bi ñuy jar seize mille cinquante francs CFA ci wàllu mburu bi ñu ngi ci am ñeenti forme maanaam ñeenti euh, poids poids bi nga xam mburu bi nga xam ne soixante cinq grammes lay pesé boobu ñu ngi koy jaay soixante francs bi nga xam ne cent quinze grammes lay pesé koy jaayee cent francs bi nga xam ne mooy cent quatre vingt quinze grammes moom la ñuy wax format standard boobu mooy mburu bi nga xam ne bépp boulanger da ko war a defar defar bi da ko obligatoire boobu ñu ngi koy jaayee donc cent vingt quinze grammes bi à cent soixante francs CFA beneen poids bi mooy deux cent vingt grammes bi ñu ngi koy jaayee deux bu loolu wooyee donc bi mujj mooy ciment bi distributeur bi donc tonne bi ñu ngi koy distribuer à soixante-quinze mille francs mooy prix bi sac bi ñu ngi ko la à trois mille sept cent cinquante francs CFA ki doon àddu moo di Abdoulaye moom la ñu dénk wàllum contrôle économique foofee ca région bu Diourbel ñu wax ci wàllum cet gi ak euh, capital bi di ndakaaru ni nga xamante ni noonee la àndeek mbalit mel ni ku dëkkook moom faf loole nag askan wi am nañ ci njàqare ñenn ñi ñu ngi koy ñaawlu bu baax dem nañ sax ba ni ndax du ñu wut ab euh, police boo xamante ni wàllum euh, surveillance boobu képp lañ koy dénk ndax gis nañ ni daal wàllu manque de civisme am na ci mbir mi mu nekkoon professeur d'anglais mu daal di retraité ci atum 2015 moom nag capital sénégalaise ni mu mel ba léegi dakaa jaaxal mbalit yi bari fi lool muy sac plastique kaasu café ay jalu xeer ak yeneen. bu ma ñëw Dakar eh, jóge Bawol boobu damaa gisoon ne Dakar dafa set wécc. mbedd yoo romb rek. dara benn salte doo ko fa gis léegi nag ñuy dem ba jamonoy dox ba yàgg ma gis ndakaaru daal soppeeku lool ci affaire euh, propreté nit ñi daal dañoo fonkul man seen dëkk ñu bari bi la étudiant dugg léegi nag ci njaayum café muy lu naqarlu incivisme ñenn ci sénégalais yi moom nag dund na li ni mel waaye daa ñëw ndékki naan café ba pare sànni ko mën ko saa jëlal lii nga dugal si mbari mu ne ma waa UCG buy ñëwee bale ko mais kooku dem ko mujjee dàq ba ñekkee ci nguur gi ba léegi régime bu bees bi eh, jëmmal nañ fi ay opération de set setal loole nag lañ ci namoon yëf yi demeewul noonu lu ko waral moo di toppatoo gi ci aaju. état dama seet ne lu muy def lépp loo xam ne da koy eh, njëlbeen ga rek la après dafa dul am suivi da koy bàyyi. mais si l' état n' a pas de suivi qu'attendons pour les Sénégalais dina am daal. ñu daal di koy toppatoo am déet naññ naññal sa dëkkuwaay loolee nag dafa gàll ci loosu bépp sénégalais. gox ba nga dëkk saa su ne waa gox bi war nañu solidarité nekk benn say waruñu xaar mairie waruñu xaar maanaam gouvernement waruñu xaar kenn. daan nit ñi ay daan yu metti loolee mënees naa nekk ab solution ngir daal di xeex tilim gi ñu nemmeeku ci dëkk bi bu ko jaree sax ñu daal di fiy jëmmal ab kuréel bi koy toppatoo. képp ku def yu demee noonu wala ngay wane acte ñu maanaam daan la ba nga xam ne bu ëllëgee doo ko tollanti loolu buñ ci saxee bu yàggee ndakaaru eh, na mu meloon ba mu fi ñëw nekk xalal dana melaat noonu. ba léegi fii ci Sénégal eh, cet gi ñuy xaar àgguñ fa ba léegi ñi ñu jot a tàllal suñuy lantinoor nag eh, ñuy ñaax ba ñëpp daal di jàpp ci li ni mel. ca diwaanu Mbëbës nga xamante ni fa la ñuy tuur mbalit yi génn ci capital bi nee nañ fukki nit ak juróom-benn ñàkk nañ fa seen bakken euh, diggante deux mille vingt ak léegi mu doon nag fi nga xamante ni wane na ni kaaraange amu fa benn yoon ki nga xamante ni nag moom la ñu tabb yees mu war a jiite euh, li nga xamante ni moo di Promojet di wàllum mbalit mi di Ibrahima Diagne moom mu ngi wane ak naqaram ak ni nga xamante ni noonee la ñu war a. yokkoo kaaraange ci dépotoir bu mbëbës moom ngay yëkkati yooyu la kàddu gannaaw ba mu doon réceptionné li nga xamante ni doon na ay jumtukaay yu ñu fas yéene samp ca diwaanu Malika lépp nag di ay jumtukaay yu xarala nar liggéey ci wàllum mbalit mi. parce am na koo xam fi la juddoo ba am bac ci ci wetu desar ci la juddoo fii la fubale fi la nekk ba am bac mais yow boo ñëwee mais li gën a garaaw nag mooy ndongo daara yi nga xam dañoo jox nit ñi. doom ni la jàngal ko alxuraan na wattu téere yàlla bi nga daal di koy yebal pour moom muy ñëw di marchander di wut 1000 francs 2000 di la ko jox loolu dinañ ci seet nag ñi ñu ci war a àndal yëpp pour mën koo gëstu pour mën a ñëw teg ci table ministre loo xam ni dina yanu maanaam waa ay ruu yu fi rot am na diggante 2020 ak mil vingt 2024 loolu jaaduwul boo wax nañu ni dem na ba 16 à vingt personnes ndax am na ñeenti nit ñoo xam benn bis dañoo waddandoo ci diggante mbandu cabion bi tuur kii bi moom ak keneen koo xam dafa dafa wadd ci suuf pneu yi camion bi euh, daal di koy moxoñee mais loolu wax dëgg yàlla soo demee lu mel ni étage bu benn nit deewee day mel ni àdduna bi yëpp ñoo dee loolu moo war a am Sénégal benn ruux bu nekk kenn xamul. mu nekk ay matériel informatique yu ñu doon jébbal yenn ci ay euh, kilifa daara ngir nag ñaax ndaw ñi tàmbale leen euh, tàggat ci métier yu xarala yi ca diwaanu bitim réew fa nga xamante ni moo di diwaanu Syrie. nee nañ nag euh, ci lu tollooku ñaari junni ak téeméeri doomu aadama euh, faat nañ leen foofu ñi ko def moo di waa euh, état islamique di woote woo wàllum l'islam bay boom ay doomu aadama loolee kon diggante deux mille vingt et ak léegi la ñu gis ni daal ci lu tollooku ñeenti junni nit ak téeméer boom nañ leen te état islamique moom moo ko def ku xamle xibaar boobu moo di observatoire syrien de droits de l'homme OSDH di xamle rek ni Euh, waa état islamique ñoom ñoo jël contrôle benn pàcc ci réewum Syrie waaye it benn pàcc ci réewum Irak 2014 ba léegi ñu ngi amal seeni ñaawteef ca diwaanu Iran fa la ñuy jeexale ni ma leen ko junjee ci boppu xibaar yi réewum Iran amal nañu seen élection ngir tabb seen njiitum réew loolee nag euh, mu ngi am gannaaw ba nga xamante ni ko yoroon réew ma euh, di Saïd di Ibrahim Raisi dafa génn àdduna ci ab l'accident bu roppalaan moo tax ñu indi élection yi gën koo jegeel ba tax na daal ñeenti mbër ñoo ci soobu woon ñaar ñi nag ñoo war a jongante ci deuxième tour bi nga xamante ni ñu ngi ko jàpp 5 juillet loolee nag kon mu mel ni euh, euh, ñaari mbër comme ni ma la ko wax léegi di Massoud euh, Pache Pache Kane moom moo jot a jàll ak Saïd Jalili ñoom ñaar kon ñoo war a xëccoo bopp réew ma ci weeru juillet bii ñu dëgmal mu méngoog euh, ñaareelu tour élection euh, présidentielle yi ndax ca premier tour bi kenn amul poñ yu koy may daal mu génn vainqueur kon élection yi réewum euh, Iran 5 juillet la ñuy jongante deuxième tour bi mbokk yi ci kàddu yi laa leen di tàggoo di leen gërëm di leen sant di leen wax nag ngeen wéy di suivre suñu ay programme sur la 7TV di gërëm équipe technique bi waaye aussi di gërëm ñi féete ci wàllum xarala gi di waa régie waaye di leen gërëm yéen mbokk yi ñu tàmm jërë ngeen jëf